tey ci nag sapoon bi bu ma ko liiree rek nit ñi daw jëkkër ja moom génnee na ko balaa dara xew ndaw si nee na xamul fenn fu ko jàngoro ji toppee ndax laaj na sax boroom këram boroom kër gi ne ko man dem naa defi wisit ba ñëw waaye awma jàngoro ji te moom ndaw si nee na moog boroom këram ba léegi ña nga ca maanaam ñu ngi jote ñu ngi sëy mu seeg madame lal dafa ndaw bëggante bu doxee seen biir kay noo leen def ngeen séq ko nee na ña ngi koy séq ba léegi waaw merci Sineer li nga joxe président Lamine neex na ma ah dégg nga loolu jëkkër ji ci boppam nag yemu ca jour bi ko ndaw si xamlee ne ko daal man daal jàngoroy sida moo ma mujj dab dal na ma ndaw si nee na ci la yaakaaroon ne ci la ko jëkkër ji di dàq waaye keroog nag la tàmbali di ko maltraité di ko duma di ko def jëf yu bon yoo xam ne ci biir kër gi maara day taal waa ji teleem lay teg rek teg ci kaset yooyee nga xam ne moom la ñoom bëggee di teg ay kasetu porno daal di daal aar boppam daal yor préservatif nañ ci jaar ndax dañoo bëgg maanaam wax ji leer daal di toog dëju ku ko dégg xam ni lii lii la waaye ay question bu mu ci am marché yeeg yëpp ñuy déglu sol daal préservatif am lu mu gis ci télé bi lay wax ndaw si ne ko par force lii laa lay def di ko torturer ba maara diitaal ndaw si nee na am na sax ay doom yoo xam ne ñu ngi sëy bu ñu xàmmee baat bi ci rajo bi maara diitaali ka ko fat bu xàmmee ne ndaw sii ma fat ndeke daa sida maara diitaali ay mbokkam noonu moo tax mu ne sooda daal il faut ngeen changer ma sama baat bi ma wax daal maanaam li may dund guddi ma toll nii ci émission bi di tës ndaw saa ngi.
ma la àndal sama borom kër ma tàggu sama borom kër gis nga ni ma fekkee woo.
kii yow waaw kooku man la man ak moom ay morom lañ bi may takk gis nga tante ma ni sama tante bi ay morom lañu bi may takk nii la ma fekkee.
waaw léegi nekkoon problème bi.
nekk na nekk problème bi mu yore ma waaw muy sëy am naa moom yàgg naa ak moom am naa moom ñetti doom kenn ci gaañu yaa xam nga ñetti weer sax.
waaw mu ngoog léegi am naa ak moom waaye boobu maa ngi doon liggéey jëkkoon naa bu gisul woon loolu léegi nag ma dem ba feebar ma dem ba feebar weer bi daal moo tax léegi mu génne ma ak sama sama doom yi ma am maa ngi nii ci biti xaw ma fu ma jëm gis nga yéen ñaar ba mu jékki-jékki dina génn.
dama feebar feebaru lum doon.
feebar sida
ah am laa am ah sida noo def ba am ko.
ah dama xaw ma ma def am ko damaa dem rek dafa feebar rek dama hôpital mu xool ma moom nga am kañ lañ la wax loolu loolu kañ la kañ lañ la ko wax.
booba bu dee jóg mat naa am te anasi bu sax garab yaa ngi rendez-vous yaa ngi nii ñetti weer yu ne ma dem jël garab
kay kay li ma bëgg a xam kay mooy ban jour lañ la wax ni da ngaa sida.
kon suur lañ ma wax ah baram dat la quoi yan moment la mat na ba weer mat na ñaari weer ñetti at kañ la woon.
bon bi ma ko waxee léegi waaw mat na ko mat na la daaw la daaw lañ la ko wax. yow bañ la waxee loolu yow lan nga yëg. lan nga xalaat premièrement ba nga déggee ba nga déggee annonce boobu noonu. bi nga fa annoncé.
ma xam na ma wax laa ko war a jëlee wallaahi laa parce que yow mosoo njaaloo mosoo def dara.
mais waaye nag am naa tàggoo nag ñaari jëkkër am naa ñaar ñu ma tàggoo parce que papaay xale yi ak ki ma tàggul mu gaañ moom mu takku ma moom daal day takk. yoo xamoon ndax dañ la koo fan noo xamoon nan nga ko amee xamoon ndax par lañ sedd parce que xam nga kii ba ni nga ko mën a amee bëri na façon bu ne. soit nga doon sëy kenn wala par lay lay sedd genre yooyu noonu.
set wala wala wala wala wala fii ci hôpital fi ñu amee doom loolu yëpp wax Loolu yëpp mën nañu ko wax.
waaw.
mën nañu ko yow fi ne ni ba fi ñuy waxee mënoo xam xamoo fi ne nii nan wa nga def ba am ko déedéet xam nga def ko am ko sa borom kër bi da xanaa war na ko am ko ni ginnaaw am nga ko yow wala.
ah man ba moo ko amee wax naa ko ko ma fay fajo bu wér wax naa ko ko man ne ko nag léegi moom mu dem seet bopp bopp moom na ngeen a amul
ah moom mu ne amul. xanaa kon yéen toog ngeen ay ay mois yoo xamante ni jotewu leen wala.
ah déedéet wante daal nee na amul nee na dem na daal xool boppam amul waaye man daal comme que moom mu ngi ak yeneen jabaram yi ci biir kër gi amaana yeneen jabar ñaari jabar la yor si kër gi.
kon yow ñaata ñaar ban position nga nekkoon ñett ñetteel bi position Mhm. te yow ba nga koy am noonu bañ la ko annoncé yow yaa ngi ci b- biir sëy bi waaw
te yéen yéen a ngi doon seq waaw
ah moom moo la wax loolu moo ne la mu amu ko moom indi na la kii bi résultat yi wala wanuloo ko dama ko wax noonu rek
ah man de xam nga jàngu ba ñëw na daal nee na ma dem na seet boppam amul la ne ba nga ko wax naa ko de ba nga ko waxee annonce bi boobu la la bàyyi yow boobu kay la ma noppee may jàmm ma def nag lu métti lu ne dafa yoroon li tax mu dóor ma sax dóor waaw li tax dafa yoroon benn kaset kaset boobu kasetu fourneau la kaset boobu lay indi teg ko lu ko si neex rek loolu la may def loolu te su ma waxee mu ne fi ne nii yow su ma la bàyyee dootoo amati keneen ku la takk ndax kenn kenn soxlaat na dégg nga ñu du toroxal bu ne def na ma ko day indi ay kasetu porno pour nga di ko seetaan léegi la nga ci gis lépp nga di ko defaat ak moom noonu la ma noonu la ma doon def te yaa ngi yor feebar bi waaw yow kon est-ce que yor nga sida
waaw maa ngi nii kii lay sol cortège lay sol ah day protégé wu waaw cortège lay sol yow na nga d'accord ceeg moom loolu ah nu may def amu fu ma jëm man moom rek laa yaakaaroon sama papa gaañ na sama yaay gaañ na bu dee yow da nga jàpp ni yow moom nga yaakaar boo ko bàyyee sa àdduna torof góor gi da lay da lay loolu déedéet yaakaaruma loolu xam nga lan la fi may fajoo moo ma jege fii fu ma nekk nii di faju moo ma gën a jege dégg nga pour léegi bu ma jógee foofu damay xalaat fu may war a nekk fu may mën a jëm
nee na ma tax na yow day la mu lay defloo yow da nga koy def par la force.
déedéet defloo ma ko force de dama ko doon bañ ba jël déggoo li ma la wax loolu dama la ko wax nii de mais dama doon jël kaset bi ba nëbb ko man kaset bi dama ko jëloon ba nëbb ko di ko ñaan yàlla ba seede bay yàqu seede bay yàqu na mujj gi télé bi yàqu wóor na yàlla affaire télé bi yàqu mais lan moo tee am faydaay bu la waxee ne defal ma lii par la defal ma ko nga nga ne ko du ma ko def dama koy dama koy bañ waaye de xam nga rek nit ak borom këram ma koy bañ tey damaa bëgg sutura parce que sama doom yi ñu ngi sëy te fi ne nii nii ma def nii tey jii ñëw wax loolu ma bëgg sax buñ ko buñ koy wax ñu changé sama baat parce que bu ñu ko déggee nag sama doom yi rek ñoo ma sonal suñ ko déggee rek mën na yàq seen sëy man mii fi ne nii suñ ma fat nii buñ ko déggee buñ xamee sama baat nañ may daal di génne parce que feebar bi kenn ñemewu ko kon sa taaw sa taaw ñaata at la war a toll sama taaw war naa am ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak juróom de mu ngi sëy moom moom la yan doom ña- ñaata doom ngeen am ngeen doom n'est-ce pas am na ñaar ñu ngi ñii ma àndal ci suuf doom yaa ngi nii ci suuf mag lañ wala xale lañ ay xale lañ am kenn ki juróom-ñaari at kenn ki gaañu ñu ngi nii ci suuf ma wa- ma bàyyi ci suuf maanaam ñetti at ngeen ñetti doom ngeen amal waaw
comme ah comme te moom mi ngi fóonde di sey yeneen jabaram léegi gis nga war kër gi kër gi xam nga lu ma doon def su ma ayee du ma jox dépense su ma ayee moom xam nga lu mu bëggoon man ma dem ma jékki-jékki demal sama bopp te moom daa su ko defee moom bu ëllëgatee mu ñëw yaa ñaan baat kay loolu la bëggoon nag loolu moo taxoon di ma def loolu loolu ba nga génn sa bopp bu ma ayee du ma jox dépense damay mujj di dem di damay mujj su ma ayewul rek ma dugg ci biir koñ bi di di génn koñ boobu mu dëkk dem feneen di ak ni ma feebaree ni ma sonne di fa yelwaan fa yelwaan di fa yelwaan dajale ko ñëw nga yelwaan foofu noonu Hmm, bu yelwaan am ngay def danga naan leen sarax leen wala nan nan ngay def su ma yelwaan mais def li may su ma yelwaan dama naan ku ku may dimbale rek lu waay am loolu laa wax ma naan dama naan damay bëgg lu ma toggal sama waa kër nii lu waay am moom lu muy liggéey moom
moom ah léegi ay xëy di jaay dama ko ñëw maanaam am na am na tuuti sutura am na kii daal am na lu muy suturloo boo xam ne mën nga am cee na man jàpp.
dafa bëggoon man ma dem rek mais am moom la ma yor parce que moom ma yoroon ba ma nekkee nii ba léegi yàgg naa moom te doom yi nag ñoom xamuñu ko déggoo li ma la wax kon nga koy def ci suuf kenn xamu ko ci kenn amul yow mii ma wax rek yaa ko xam kenn xamu ko dama koy def noonu pour bëgg fi nekk rek kon yow feebar bi ñaata at nga nga nga nekk ak moom ci ni nga ne daaw la woon ba ren mais waaw bi maa ko yëgee léegi am na am na mais at boobu yëpp nag moom bi ma ko xamee ak léegi rek damaa sonn te yow toog toog ba ci yàgg nga xalaat tiit ni xam ni boo su feebar bi moom maa day taal yi wala wala yow defoo ko benn problème am naa ko problème problème moo ma mel nii gisoo man ñeent fukki at doo nga ñett la am problème moo ma tax a mel nii di ko xalaat ba ngisaan gisoo ni ma mel ah problème moo tax ma mel nii xoolal ni ma meloon du damaa la woon firnde yu leer nañ ba pare lii ma lay wax nii kooku ku góor ki dafa soxor moom sa borom kër bi dafa soxor gis nga su xamee ñëw naa fii pour di fi ñaan si ndimbal jaral na ko mu fay ay nit ñu woote fii ne li mu wax du dëgg wala moom ci boppam mu ne li mu wax du dëgg gis nga fi toll nii su fekkee ne nii li ma lay wax nii danga ko ci bëgg a teg bëgg naa nga boole ma koo xam ne dañuy ànd moom ni ma toroxalee si koñ ak ni ma def si koñ bi kooku ñëw dugg si koñ bi ma ànd ak moom mu laajte ko ba xam ne lii dëgg la.
ah jaru ko dama jaru ko boo waxee boo yow mi déplacé wu jógee sa kër ba fii nii di wax xanaa sosoo loolu maa dama dégg li ma la wax maa xam ne moom su ko déggee jaral na ko mu woote ne loolu du dëgg.
instant bi ne may na la sabar wala may na sabar may na ma sama baat génne ma si biti may na ma sama baat génne ma si biti maa xale yi ñu ngi ànd nii ci suuf huit heures laa fi ñëwoon ba tey.